fii ci Sénégal patronat bu yees juddu na Abdoulaye Sylla njiitu Ecotra moo nekk ca bobba bis ni tey mën nañu jàpp ni lu tollook ñaar fukk ak juróom-ñaari société boole nañu seen doole ñu ràññee leen nag loolu ci mën seen bopp am dëgërluwaay bu mat sëkk ci wàllu koppar ñoom nag ñoo taxawal kuréel gu yees gii duppeeku club cinquante pour cent de préférence nationale C50 PN Ablaye Sylla mi ko jiitee di njiitu ECOTRA SA ak ñim ci àndal ñépp nag ñu sax wóolu ko fas yéene taxaw tem ngir nag jële fii li nu jàpp ni kat ñàkk fulaal ak faydal entreprise nationale yi moo taxit ñu fas yéene banque seen yoxo dakkal seen lëkkaloo ak mboolem entreprise étrangère yi sàmmoowul marché yi respecté wul trente pour cent ci contenu national bi ci firnde nag mën nañu jàpp ni Ecotra wane na yoon wa ci wàllu wu ni mel ndax marché bi nga xamante ni moo jëm ci wàllu yokku barrage Saba Galou bi nekk Kédougou Vinci Construction gagné woon ko te bañoon sàmmoo ak loolee ñoom ñuy xeex di téeméer bu nekk fanweeri jëm si sunu société yi nekk si biir réew mi te sax nag OMVS mi doon liggéeyloo entreprise boobu di Vinci construction sàkkuwaat si moom ngir mu jëmmal lii Ecotra bëgg ak société yi mu àndal nga xamante ni bu nga ko xaymaa dina toll si quatre-vingt-neuf millions euros bi ko Vinci bañi ñoom Ecotra danoo am fulla gu mat sëkk banque seen loxo si beneen wàll tey jii tamit mën na nu jàpp nii patrona sénégalais bii de am na wujju di nag wujju bu mat wujju ndax club cinquante pour cent de préférence nationale taxaw na fii nag si Diamniadio lu ñaar fukk ak juróom-ñaar si ay entreprise yu nu nag ràññee ni kat doon nañu ay entreprise yu ko matee si gëdd si xam wàll wi ni yëngu kon mën nañu jàpp ni entreprise yi de saytu gu mat sëkk moo tax laataa nag ñu taxawal lii bay taamu patron wu Ecotra SA di Abdoulaye Sylla amoon nañu liggéey bu am solo ci seen biir di fàttali nag Ecotra SA bii Abdoulaye Sylla jiite mi ngi yëngu si wàllu ci wàllu tabax ak yeesal lépp lu jëm ay tali ak it ay bâtiment ay forage wàllu assainissement ak it si wàllu environnement